fekkee sénégalais yi ngay wax yaakaar naa su ma ñëwul woon la ñuy am mbetteel ndax d'abord lii élection la te élection mooy bisu bu citoyen yi moom ndax suñu constitution ci article ñett bi tomb ñett bi dafa wax ni sañ-sañ bi askan wi moo ko moom te moo koy dénkaane xam nga denkaane boobu ci élection lay jaar wala mu doxalal ko boppam ci référendum bi ñuy wax oui ou ñu teg ca nag ni amul benn pàcc ci réew mi wala benn doomu aadama ci réew mi bu mën a aaki moo sañ-sañ bi am na réew yoo xam ne tey boo fa demee doo fa gis élection wala même bu ñu ko bindee seen kayit mënuñu koo jëfee ndax dañoo nekkul ci jàmm kon pour man lii lu am solo la loo xam ne ñun am nañ ko ci suñu jamono ñu war ko sàmm moo waral man dama mës a gëm ne euh, élection kenn du ko boycotté loolu du lu bees du du du xalaatu tey ndax ñëpp xam nañu ne PA yi moo ma yar ba may am fukki at ak ñeent laa ci dugg waaye bi ma amee ñaar fukki ak ñaar laa ci bàyyi te ñoom ñu boycotté élection moo ma ci tax a bàyyi ndax dañ maa jàngaloon ne élection kenn waru ko boycotté kon déjà loolu yàgg na te du tey ndax 1988 la woon bi ci topp mooy Sénégal yëpp xam nañu ne 2007 dama jagadi woon nekk hôpital ca Paris. ñuy def élection député boo xam maa doon tête de liste te mënumaa ñëw ci campagne bi euh, bi mu desee ñeenti fan damaa génne sama bopp hôpital ci loo xam ne ñu fajkat yi ànduñu ci ndax demal leen mënumaa toog di noyyi ci àdduna te du ma voté ji looloo waral ma jël ñëw bi may ñëw keroog di voté ñi ko fekke gis nañ ne comme damay rang man toujours su may voté dama faa njëkk fajar laa ñëw teg siis toog ndax booba mënumaa taxaw jaraloon na ma lool ba ma voté ba pare ndax effort yi ma def ba jóge foofu ñëw euh, bi ma wotee ba noppi mënatumaa jóg ba dañ ma évacué waat Paris kon xam nga su ma jaaralee loolu gisuma tey lu war a mën a tax ñuy def élection yàlla dogal sénégalais yi yëpp bokkuñu ci voté bi ndax élection wu ay o conseil donc conseillers ñoo mën a voté kon su fekkee man yàlla may na ma ma bokk ci ñi am chance su participer ci tànn ñooñu ñu war a wax quand ci turu sénégalais yi damay jóg voté si loolu laa def si woon tey. may rafetlu le fait que ñeneen aussi ñëw voté si kenn neewul sa morom nangam la dañoo bokk ay yëg-yëg ñu ñëw def si ko parce que loolu dama jàpp ne lu jaadu la. kon donte vote secret la mëneesul euh, la su parce que bu ma ko defee damay tooñ bu ma ko defee damay jalgati te bu fekkee ne dafa am foo toll ci sam réew da nga war a bokk ci ñuy jàngale. Euh, xëy na doon na neex ci man lool ma taxaw wax li ma def li ma voté ak lu tax waaye dama warul léegi comme waruma nag je préfère rek ñu xam ne voté naa. ñu ragal ne abstention moom amul bulletin bu ko prévoir peut-être ne xanaa nga dem def loo xam ne day nuyuloon. sa sa vote te boobaa dañuy euh, daal Talla daal wote na. daal wote na waaw nooy jàngatee ne ko Talla daal wote xam nga xam nga xam nga man kenn dégguma ci. te bu ngeen seetloo quand même na luy xew ci senegal te kenn du ma ci dégg tamit ngir dafa bëri loo xam ne lama ci xalaatoon dama ko wax bu yàgg. ñëpp xam nañu bi may présenté wu présidentielle 2007 damaa proposé projet de constitution ñëpp xam nañ dama bokkoon ci assise national donc li ma xalaat nit ñi xam nañ ko ba pare. tey jii question bi du li ma xalaat question bi mooy li fi ne di institution loo xam nekk na loo xam bu ma ñëwee bu ma ñëwul dana am ñu fa dem bu ma amee bunt bu ndaw boo xam mën na maa may ma bokk ci ñii tànn ña fay dem di war a wax ci sama tur di ko wax ci turu ñeneen. kon mën ñëw na kon dëggal na loolu lu amal njëriñ wax bi tekkiwul loolu. wax bi li muy tekki mooy tey jii ab citoyen sénégalais laa ci jamono bii institution yii ñoo fi ne. et mon devoir c'est de respecter les institutions man tey jii am na ñoo xam ne damaa jiite conseil dama jiite ab conseil boo xam ne am na ñoo àndul ak man mais bu ma wootee dañuy ñëw lu leen neex na la ñuy voté waaye le fait que ñoom bu nu ñëwee korom di am ak yeneen daf ma koy rafetlu kon man duma def luy tax korom bañ a am ci li nuy wote ba ñu bu ñu génnee rek juste pour le plaisir de dire d'accord moo ci woon institution bi donc jamonoy d'accord ma dafa weesu. jamonoy d'accord ma ci institution bi ba ñuy wut pour taxawal institution bi am ndéet la woon mais tey jii ka nekk na nekkatuñu ci débat boobu débat bi ñu nekk tey mooy su xasee nekk nan la ñëpp di fexee en tant que citoyen di xam la fa xew bu defee lu dul noonu ñu joyanti bu waree tegu ci yoon ñu teg ko ci yoon ba bis boo amee yow kàttanu nekk foo xamante ne yow yaay dogal leneen bu boobaa soo jàppee ne du moom nga teg leneen loo xam ne da koy proposé askan wi moom sañ-sañ bi bu ñu d'accordee ak ci yow ca loolu ñu tëral. xibaar yi wax ne Talla Sylla euh, président de la yooyu ndax mën nañ ko ko firndeel ab bu dee waaw ñu bëggoon coopté ndax di nga dem. xam nga paaka d'abord kenn du ko jiitu ci mbaram euh, ñëpp xam nañ ni euh, Talla ñaanul dara mësul laaj dara mësul laaj dara man musumaa laaj dara loolu ñëpp xam nañ loolu. dama ànd ak ay nit na bu lépp lu jëm ci wàllu wi ñoo xam ne damay liggéey ak ñoom bis bu amee loo xam ne dafa jëm ci wàllu woowu danaa dajale nit ñi nga xam ne mbir moomu concerné na leen ma wax ceeg ñoom xam nga euh, ñi xam ñëpp xam nañu ne boo jëlee jëmmi Macky Sall waxuma président de la République jëmmi ji ñëpp xam nañu sama xarit la waaye ñëpp xam nañu aussi ne ba mu nekkee président ak léegi ñaari yoon yu ñu daje ñaar yëpp public la. bi njëkk association internationale des maires francophones ñoo doon daje mu daje ci King Fahd Palace ak sommet wu CEDEAO mu teew ca recevoir ñu ci cadre boobu beneen bi ci des mooy ci dialogue national bi ñëpp di dégg te ñëpp xam ne ku xam taal si xam ne bu ma bëggee def dara midi laa koy def jaar avenue de Caen ne topp leen ma maa ngi dem mais président Macky Sall ci boppam xam bu ma xam ak respecté bu ma respecté mooy tax du mas toog nii moom directement nii keneen mu yebal ko ne ko demal waxtaale si la na ñëw bokk ci parti bi xam na ni maag moom bu ñu waree toog di waxtaan dana ñu waxtaan su ma waree wax ak président dana wax ak président su ma waree wax ak premier ministre wax ak moom su ma waree wax ak beneen leader politique bu nekk ci opposition bi dinaa ko def parce que je suis un homme libre bu boobaa ce sera en fonction de l'idée que je me fais de lan mooy intérêt Sénégal ak intérêt Thiès ca waxtu woowa loolu amul benn werante